salaamaaleykum mbokk internautes yi seen émission conseil santé gëstu bi mu ci gerte badam wala petit cocoman moom nag benn fruit la boo xamante dafa bëri vitamine bëri ay fer bëri tamit lu muy faj yow bronchite de la poitrine wala nga biir en infusion maanaam nga tàngal ndox ba set bassin ko ci faral di lutter contre les infections urinaires les hypertensions artérielles ak tamit loolu ñuy woowee feebaru effet hépatoprotecteur parce que dafay lutter contre les maladies des reins moom dafay combattre les microbes di éviter les infections gerte tubaab mi ngi noonu ak ay ngëneelam di leen jox dig daje fii ci Warkha TV ak beneen ngëneel